général Diouf ak euh, Ndeysaan macha allah général am na lu mu ci suuf day dox ci koom ndax conseil bi ñu ko waxoon da koy def moom général Diouf. ikiri Mbour la nekk ci Bombardier le B52 de Mbour am nga bis bu sa digganteek Balla Gaye 2 Ndeysaan mu ngi noonu général Diouf macha allah ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi deme wet. ndaysaan ña ngay demee wet général Diouf macha allah ñu ngi noon ndaysaan arbitre bi nee na ko taxawal nee na macha allah taxawal bëre nee na ko taxawal bëre cokkaas na cokkaas na macha allah général Diouf macha allah général Diouf ñoom ñaar fu ñuy mujj macha allah ngi dox ci koom ndànk wala général a ngi dox ci koom ndànk. macha allah di rëkk de macha allah taxaw benn place arrangé ko ci combat bi waaye fi mu jëm baaxul ci moom lu ma la waxoon saa yoo demee pied droite général da lay dóor coup crochet ndax da ngay moom gauche nga war a jëm sa gauche ba ngay jëm fii yaa ngi dem ci droite général macha allah général mën na la dóor nga daanu. làmb kay lu ma la jox takkal téere na jëli ko paqueté na ko na ko da koo jàpp doole doxul jàmm. jàpp na jàpp na dina ko daan daan na ko daan na ko daan macha allah daan na Général Diouf macha allah daan na ko.